léegi nag xaw nañoo set tuuti ndaxte ku nekk wàcce nga lu mat soixante-dix kilos ci ay téere yoo takkoon mu dese la trente kilos wala boog wala quatre vingt kilos lañ dindi waaw mu des dix kilos wala quatre vingt kilos mu des cinq kilos waaw li ñu def seen digg rek mën na ñetti kilos moom Laurent Ndiago moo féete à droite Boussida à ngemb boo ngemb bu xonk lu raa njaago ngemb ban xaw ma ngemb bi couleur ban la est ce que du ñuul attention lu raa njaago ak bu sida aj nañu seen garde ña ngay def déplacement même pied la ñu jiital Laurent sànni na tey Laurent xeex rek la andi tey Laurent dama gis ne ay sàcc na tànk ba waaye jeex na eh, eh, eh. allah nakira wa faraja wee pep pep sànni sànni tànk sànni tànk rocci sànni rocci sàcc rocci bu Siteu gi dóor ay Laurent tey joom mi de Laurent dafa sàcc tànk arbitre arbitre puusal ah arbitre moytul balaa ñu lay dóor voilà bu bu ngemb cuub la léegi gis naa ngemb bi comme wan ma ginnaaw attention Laurent Ndiago ngemb bu Siteu a ngi dóor ay uppercut ma ngay ay uppercut Laurent Ndiago fay na Laurent bu Siteu da la bëgg a ba pare bëri loo la da la xeexloo nax la barki sëñ bi da laa bëgg a xeexloo nax la da xeex bi léegi bëreel ah waay ah ah ah ah ah lii lu mu lii lii la laa woo ay eh, waay affaire u jinne ak affaire u seytaane la fi def Laurent njaago mooy mooy saay-saay pire mais bu Siteu nag xoolal dafa mel dafa ànd ak xelam bu si da tekk la def di ko xool rek daanaan la ka mu tuddee boppam la e e e nooto sigi e nooto <laughs> nooto nooto nooto nooto bu si da da lay dóor nga daanu de da lay nga daanu bu si na ko bopp bu si da a ah, caxabal wo pep Laurent Ndiago caxabal na ko ah waay waay waay yëfi jinne yëfi jinne yëfi jinne yëfi jinne oh esprit fair play oh xale yi fair play nañu esprit fair play entre bu si day ah waay waay waay waay waay waay waay waay waay waay ah waay ndeysaan ndeysaan ndeysaan regardez ñi ñooy ay supporters bu site fair play ah waay ndeysaan ànd nañu ñoom ñaar ci supporters yi ay waay bu Siteu ak Laurent Ndiago Laurent Ndiago dem na si ay supporteru bu Siteu Laurent Ndiago dem na si ay supporteru bu Siteu encouragé leen ñoom ñaar ña nga toog